Toujours dans votre actif du jour de ce 25 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements ginnaaw suñu jógee foofu dañuy dem fële nga xamanteni moy mooy à bi nga xamanteni am nay xalé yu fa faatu won te ki di Ndella Madior Diouf ubbi won ko fa jamono ji mu nek en lieu de détention nek retour de parquet ginnaaw bi nga xamante ni xale yi fa newoon lu toll ci 48 récupéré nañ leen yóbbu leen ci ay hôpitaux lu mel ni Albert roy ak hôpital Gaspard Camara ñu ànd ak ay feebar yu doy waar tey dañuy posé wu question di laajte non conformité bi laxisme la ñi nga xamante ni mooy structure yu ñu ko déjee pour l'enfance wala benn négligence la boo xamante ni bu coupable la en tout cas muy question bi nga xamante ni tey ñu ngi koy laaj ginnaaw affaire bi nga xamante ni moo sukkee li nga xamante ni mooy kër yërmande Ndella Madior Diouf ginnaaw bi nga xamante ni ay manquement yoo xamante ni entouré na li di création structure bi nga xamante ni moom la dippee accueil pour enfants muy benn pouponnière boo xamante amul benn document administratif nécessaire na tey que pour lépp loo xamante ni dafa ko ci premier élément enquête yi ñu daal di accueillir pourtant lii nga xamante ni mooy une cinquantaine de bébés ba noppi daal di leen gis ni que ci ay anam yu doy waar indi benn manquement boo xamante ni partagé nañ ko jëm ci benn sigoñ boo xamante ni tey bu bleu lay doon ñu teg ko ci ay crèche yoo xamante ni dara sukkee ko lu dul ay baatu nourrisson yoo xamante ni diggante 2021 ak tey fii ñu taxaw ni mu doon loo xamante ni tey mën na qualifié wu benn affaire boo xamante ni kii di Ndella Madior Diouf remettre na en cause lii di prise en charge lépp lu jëm ci xandaw fii ci suñu biir réew ginnaaw benn scandale bi nga xamante ni tey dafa ñëw ajouté wu jëm ci ay bien d'autres yoo xamante ni yu similaire la ginnaaw Ndella Madior Diouf bi nga xamante ni actuellement mi ngi en détenu pour homicide involontaire maltraitance sur des enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation ginnaw biñu chanter li nga xamante ni mooy légalité jëm ci structure d'accueil dafa war a doon lu fonctionnel depuis deux mille vingt deux mais gisuñu benn voix bu officiel boo xamante ni jóg na pour contredire loolu et pourtant premier élément enquête yi lan la relevé que bépp média boo xamante ni wane nga lépp loo xamante ni amoo ci woon droit na nga jël say en charge ñi nga xamante ni mooy xale yi ginnaaw Ndella Madior Diouf dafay continuer di exercer lii di activité yi nga xamante ni ay employés recruté woon nañ leen ba noppi dal di jaay li nga xamante ni mooy mèche bi ginnaaw loolu nag dafa doon benn question bu mérité wu ñu posé ko autant plus que amul kenn koo xamante ni am na action boo xamante ni posé na ko jëmale ko ci encontre kii nga xamante ni tey moo am habitude di exposé ay xale ci ay réseaux sociaux ak ay médium yoo xamante ni de communication la pour étayer li nga xamante ni mooy bonne foi am mu doon benn opacité boo xamante ni tey mën na entouré lii di couverture pouponnière incriminée te du doon dara lu dul benn nouvelle boo xamante ni atum août deux ci la faatu ki nga xamante ne benn xale bu ndaw boo xamante ne tey cigogne bleu moom moo ko rayoon ginnaaw bu mu étalé ay manquement jëm ci création structure am accueil boobu nga xamante ne dañ ko destiné ay nourrisson ginnaaw enquête bi foofa ca sûreté urbaine ci affaire bi nga xamante ne mooy crèche bi lii di cigogne bleu bi nga xamante ni révélé nañ ko plusieurs zones jëm ci ay ombre yoo xamante ni mënoon na informer ci benn époque quotidien bi nga xamante ni tey lépp luy nourrir mën na secourir mënul woon ñàkk benn qualification professionnelle boo xamante ni am na ko foofu ca crèche bi nga xamante ni disposé wul benn autorisation boo xamante ni tey war na mën a amal liggéey boobu muy benn directrice boo xamante ni mënoon nañu prétendre amoon na benn récépissé de dépôt bi nga xamante ni lépp lu ko joxoon mooy droit wu exercer en attendant muy am autorisation définitive mu doon loo xamante ni lu faux la ginnaaw exploitation bi nga xamante ni lii di récépissé de dépôt bi foofu ca agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits amul woon dara loo xamante ni relevé na ko jëm ci ay droits yoo xamante ni war na exercer en attendant que lii di autorisation définitive di génn muy récépissé de dépôt boo xamante ni tenirul benn yoon benn autorisation amul benn état de cause boo xamante ni lii di crèche bi disposé woon na ko jëmale ko ci ay ouverture yo xamanteni ay établissement la jëm ci négligence fatale yo xamanteni ne mën nañ ko constater jëmale ko ci ay structure publique ba tey suñu sukkandikoo ci weeru août bi ñu génn intention bi nga xamanteni ni kii di linger bi coûté woon na la vie ak benn bébé boo xamanteni ni foofa ci hôpital Abass ndaw la ñu tegoon ko ci ay circonstances yu dramatiques jëm ci drame boo xamante ni occulté woon na li nga xamante ni mooy incendie bi amoon ca crèche hôpitalu Magatte bi amoon foofa ca linger ak li nga xamante ni tey mooy unité néonatologie bi nga xamante avoir des enfants pas ay nit tout fa ginnaaw lakk bi bu mu amee si la ñu wàccee a kii di Abdoulaye Diouf Sarr kon tey nañu jàpp ni que négligence bi nga xamante ni la Diouf je crois que la part de responsabilité on doit le situer sur qui Par Diane, ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants Par Diane, de am benn mission ci Sénégal Deux xale bu am 0 ba Vous ans waxuñu la nga crèches, ci crèche nga nekk ci pouponnière nga Faa Diagne dafa war a saytu xale boobu de zéro à dix-huit ans parce que loolu lañ ko tegee ci ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants jox ko budget mu war a doxal kon tey Ndella Madior Diop su ubbee benn pépinière di jël ay xale amul autorisation amul dara amul personnel bu qualifié wu Faa Diagne nekk ci dëkk bi Ndella Madior Diop di communiquer chaque jour à travers les réseaux sociaux di leen utiliser ay plateformes médias di ci communiquer di jël ay xale di leen exposer Faa Diagne nekk ci Sénégal nañu jàpp ne le ministre de la femme

Si ñu doon situer les responsabilités aujourd'hui on peut blâmer le ministre de la femme Fatou Diané à 90%. Elle est responsable. parce que le ministère de la justice autorisation quest ce que mais a duré on va saytu xale fu mu de 0 à 18 ans pour que ngi tudd Fatou Diané du ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants Si je la protection des enfants donc Fatou Diané a failli à sa mission par rapport à xale yi nga faut que faatu nañu foofa cëpp faire kër bu ak xale yi nga xamante ni tey jël nañ leen seen bakkan bi ñu ci xottu leen ñu transporter leen ci hôpital il ne nag maanaam li ma leen di wax duñu prévenir dara dañuy xaar ba jëyee ji am ñu commencé jël ay décision mais je crois que à partir d'aujourd'hui nous lançons un appel au président de la République Macky Sall Fat Diané a failli à sa mission sur toute la longueur donc Fat Diané ne mérite pas de porter li nga xamante ni mooy tutelu ministère boobu ñu ko jox muy ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants parce que Fat Diané ne protège pas les enfants parce que tey su defoon liggéeyam ni mu je crois que tay du taxaw fi ndax ci doli ma ngi ci réseaux sociaux yi ñuy publier ay photo nit yi nga xamanteni tay amuñu décision bu ñuy jël on peut dire que Diégui Diop elle n'est plus dans cette direction Diégui Diop tay su defee rapport am dugal ko té Pape Diané signé ko mom moy ministre tutelle donc Diégui Diop mënu ci dara donc la principale responsable la principale coupable ce n'est personne d'autre que le ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants donc je crois que tay Dieu ben conscience warul tok yor sa xaalis bëgg ko jox ay nit ñi dem ci réseaux sociaux yi di jël image yu beneen doomu aadama boo xamante ne tey amul responsabilité bi ablituwul pour jël décision boobu pour ñuy teg ay photo foofu en exergue di fay ci réseaux sociaux yi ay xaalis ñuy commenté wala jox je crois que nous Sénégalais nous alertons le président de la République Macky Sall sur ce qui s'est passé à Kër Yërmandé sur les nourrissons yi nga xamante ne tey am na ñu ci ñàkk seen bakkan ñeneen ñi nekk ci ay état yu critique la seule responsable aujourd'hui c'est son ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants Fat Diané qui a failli à sa mission sur toute la longueur ndaxte tout defoon li ko yoon may saytu na ko bu yàgg ndaxte depuis combien de temps Ndella Madior Diouf mi ngi yor pouponnière bi di ci communiqué di wax toog na te fi live en direct ne kep ku ma yor sa doom soko soxla so soo ma joxul 3 millions doo ko jël et pourtant Fat Diané su ko déglul am nay chargé de communication parce que ministère bu mu nek dafa bari ay nit yo xamante ni ngi leen di fay kon lan moy seen liggéey donc il est temps que ñoom ñep ñu dégager

nekkoon fi ñu forcé leen pour ñu entretenir ay relation yoo xamante ni sexuelle la à usage ci la loo xamante ni ay contraception la ñi nga xamante ni mooy mise en cause yi dañ leen defoon ay responsabilité presque mu doon ay centaine de filles yoo xamante ni tey benn école la boo xamante ni échappé wu na encore ci benn contrôle boo xamante ni autorités yi am nañ ko kon donc je crois que toujours Pape Diané est en train de faillir à sa mission parce que topp toowul dara lépp loo xamante ni gis nañ ko ci ay cas violence ci ay xale yu ndaw ay cas viol yoo xamante ni am na fii bërki démb la fi Touba benn sëriñ jàpp 27 sept xale yu jigéen ñoom ñëpp mu sàkku leen te neexu leen ben benn déggu ñu ministère de la femme et de la famille yëkëti ci wala wax ci wala porter combat bobu donc en tout cas ce qu'on peut reprocher mooy benn affaire dañu reprocher on le reproche à ki nga xamante ni mooy Fatou Diagne elle a failli à sa mission monsieur le président de la République ni nga jëlé woon décision ci ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr ginnaaw bi nga xamante ni jéyi am na foofa ci hôpitalu Linguère ak Tivaouane je crois que c'est le même cas qui doit revenir sur ki nga xamante ni mooy Fatou Diagne parce qu'elle n'assure pas sa mission ki nga xamante ni moom lañ ko dégg tey su assuré woon mission je crois que depuis que Ndella Madior Diouf commencé woon wax tey xale yi duñu faatu ba tey ñi nga xamante ne dañuy nekk ci yenn diggante mais toujours lu wax rek médecin après la mort la def dañuy bàyyi ba jëyee am ku ci nekk commencé def ay communiqué di yónni ay nit ci réseaux sociaux loolu fajul réew en muy li nga xamante ay cas similaire la mooy bi ma cité léegi amoon foofu ca Suuba ba noppi daal di indi benn yii nga xamante ne ay centaine enfants lañ yoo xamante ne ñu ngi ci mbedd bi di yalwaat teg ko ci capital bi muy ay simple talibé yoo xamante ne ay victimes lañu de traitement de personne ak li nga xamante ne mooy les enfants yoo xamante ne ñu ngi plié wu ci ci mbeddu Dakar yi te amul kenn yoon koo xamante ni mën nga ci éméyow jëm ci situation bi nga xamante ni tey Sénégal daf ko habitué wu jëm ci benn mal boo xamante ni mi ngi koy vivre permanemment jëm ci benn politique de lutte contre li nga xamante ni mooy les enfants de la rue te manqué wu ñu benn slogan boo xamante ni tey mën nañ ko brandir jëm ci benn tête à tête boo xamante parfois des indi ay résultats jëm ci auteur yoo xamante ni bàkkaar na la daal di accompagner lii di opération de retrait. li ñu mën a xam daal mooy lii nga xamante ni mooy Ndella Madior Diouf def na ko ba jamono ji mu jural ko yoon teg ko loxo je crois que dafa am yeneen part de responsabilité aussi yoo xamante ni war nañ ko mën a situer Ndella Madior Diouf Les est fautive ñi jox seen doom Ndella major Diouf elles sont fautifs waaye à quatre-vingt-dix-neuf pour cent le ministre de la femme de la famille de la protection des enfants kii di Pape Diagne elle est responsable entière responsable de tout ce tey su defoon liggéeyam ni mu ko waree je crois que du ñu woon egsi ba catastrophe yi wala jéyam di fi am ndaxte la nee ministre de la femme de la famille de la protection des enfants war nga am benn équipe boo xamante ne day nekk ci terrain bi di saytu xale yi je crois que képp kuy ñëw Almadies diggante rond point Nirvana jëmale ko ba rond point Ngor demal foofu nga xool à partir de vingt deux heures ba six heures du matin tu vois que des enfants de moins de cinq ans ñooy nekk ci mbedd bi di traîner ci ay milieux yoo xamante ne tey mën naa ne milieux yu dangereux la pour ñoom ndaxte lan moo fa am la prostitution lan moo fa am la drogue lan moo fa am euh, l'alcool ci loolu la ñuy màggee loolu la ñuy dundee alors que ministre de la protection de l'enfant mi ngi fii musuñu gis mu jël ci benn opération musuñu gis mu saytu ko ba xool xale yooyu ñan ñooy seen waajur ak nangam sangam ba jël ay responsabilités teg leen donc je crois que parfois dañ leen dénk ay ministères mais dañuy faillir seen mission aujourd'hui on peut dire que Fatou Diané ministre de la femme de la famille de la protection de l'enfant a failli à sa mission à 100% parce que tey li mu de def defu donc je crois que le président de la République Macky Sall doit prendre des sanctions Pape Diané ne mérite pas de continuer à cette poste moom ci boppam dafa am ngor boo xamante ni moom mooy njëkk rendre le tablier di parce que suñ la dénkee dara te mënoo ko yor te askan bi tax nga war ko yor donc je crois que ni tey ñoom ñoo le président de la République Macky Sall ñii ñoo tax askan bi di mere président de la République Macky Sall ñii ñoo tax askan bi foog ni que président de la république Macky Sall il est complice avec ñi nga xamante ne ay dirigeants la Macky Sall nag il est le président de la république mais il ne peut pas tout assurer day jël bi nga xamante ne am na ci ñoom yaakaar que compétence bi war nañ ko mën a gérer mu jox leen kon diw nag suñu la joxee foofu dara te respecté wu ko président dafa war a nekk ci côté peuple bi daal di xool li peuple bi bëgg ñu jël Fat Diagne jëlee ko ci poste ministère boobu mu nekk parce que defu fi dara defu fi dara Fat Diagne bu fi nekkee ba tey mënu ma ne benn réalisation la fi nekkee fi dara lu di jël yenn médias yi di leen fay xaalis di leen defar ay convention te nee naa leen convention diggante ministre ak média loolu du dara forme de corruption la corruption kese la parce que convention maanaam mooy lan xolal lu baax li may def rek nga koy wax lu bon lu ma def bul ko wax mais loolu ñu ngi lay korom alors que les médias doivent être là pour l'équité la neutralité ak li donner la bonne information en tout cas muy benn laxisme noté nañ ko ci li nga incident bi nga xamante et principal responsable ministre de la femme de la famille et de la protection de l'enfant <laughs>